fayul kay waaw ah. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp di ñaanal ñëpp jaamu di ñaan Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg waaw en fait di dellu di wax sama mbokku safoor yi yëpp këriñ ci àll bi rek waaw di wax nañ ci vigilant bu baax a baax waaw këriñ bala nga ko sol nañ bàyyi ba këriñ gi di fay parce que souvent pël yi dañuy ràcc fuur ñaari fan ñetti fan ñu ñëw solal la ko nga départ bu ko ngelaw li jàppee oto bi tàkk mën nga ci ñàkk oto waaye yii yëpp ay yëpp insécurité la quoi te chauffeur waruloo bàyyi benn détail benn détail waruloo ko bàyyi boo ñëwee dee ci fuur wala këriñ gu ñu indi ci dëkk nga war ko yëpp xool na la leer ni këriñ ki lépp fay na lépp fay na parce que ay conséquences yi lay jur loo xamante ni mën na la lor quoi di ziar Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal.